masalam fiq de foo ko dégg dégg ca xilaaf masalam fiq moom foo ko dégg dégg ca xilaaf problème bi mooy bu ixtilaaf amee la kee wax na ko firndeel li wax firndeel ko te bañ a seen duggantey kurpañ lii nag imaam yi def lii imaam yi def alayhi mas naa am ab feebar bu ko toogal sa kër ba tane na ko toogal sa kër ba tane loolu benn la bu ñaaral ba ànd na ak tukki muy taw mu ne am noddkat bi mu ne ko maa ngi nii mu ne ko changel nodd gi tey tey bu ma dégg xaya kaay leen ala mu ne ko lu ma mu ne ko da nga naan sallu fii rihaalikum nag ku ne julli fa mu nekk du ñu daje ba mu xewee ca dëkk bay def ne sallu fii buyuutikum bu ñu dajee mm-hmm. boobu nag am taw la Mbàkke su ñëmoon foofu rek nga yëg ne kon fu gën a métti taw du ñu war a def mm-hmm. ñi xam ne am na loo xam ne bu xewee ku ne mën naa jullee fu mu ne ndaxte boo demee ci téer yi bu ñu lay jàngal nganti juma ak bàyyi mbooloo mm-hmm. almaradu la ñuy jiital muy feebar feebar nag ndax mooy rek mu dal ba mënoo dem rek mooy feebar bu fekkee boo demee dañ lay jox feebar bi mm-hmm. feebar la mm-hmm. bu fekkee boo demee yaa koy joxe boobu mm-hmm. itam